إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال في بالمجد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال في بالمجد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا عجبني خير باخ في خطابا كل ورقب ما لغد اختابا عجبني خير باخ في خطابا كل ورقب ما لغد اختابا لواجب ما خصد المبي لنا فارغت وولك والأمن ما غاب بيوت الذي ليس عني ولي بدني ولي يخلده من كبس خابا إلى سوى يردا تنو بما معهم وبيصفي إلى عدر الباب قلوب من لم يحب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 bokki julli di bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare mu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ndokkeel di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi fi nekkal sëñ Touba sunu yàggal ko fi lool te ko ba yéene yi mu am ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla na ko defee nim ko bëggee te yàlla nañ ko ànd ak moom. noo ngi am cant bu baax ci jataay bi nu toogee ci ndigal li nga xam ni moom la sëriñ bi joxe. ci wàccaayu bisu xaside bii nga xam ne moom lañ jublu euh, ñu bokk fii ci daara ji toog ci su kon kanamu sunu jëwriñ Serigne Youssou Diop ngir waajal bis boobu ñuy woote nag ci turu jànkati xaside yëpp yi nga xam ni euh, ñoo aju ci daayira Mawahibou Nafih ci turu sëñ Fallou Ndiaye ak mboolem jàngkat yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yëpp mboolem région yëpp. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fi Touba itam ci taxsimu Seexul Xadim ak mboolem daayiru ahlu xasida ak Touba xasida social ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci jataay bi jataay bi itam ñu ngi koy amale ci jullikaayu it bi fii ci kanamu jumaa yi muy fi jullee it foofu lañuy xëy bu sept wala huit heures gën gaa naaj ñu bokk fa daje dundal bis bi ni ko sëriñ bi diglee ba takkusaan noo ngi toog nag ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoom la ñu di ci woote ci seen ñoom ñëpp di sàkku itam ñëpp maase teewandoo fa te kuy ñëw ngi indaale pas-pas bu dër ak yitte ju mat sëkk ngir sëriñ bi lim nu sàkkul ci boroomam nu mën cee jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yallaahu yaa alimu antallaahu wa yaa xabiiru maalahu asbaahu هب لي من لدنك ما نحب يا من له الأمور أنت الرب وعافنا والتف بنا ونجنا والتكفنا وكن لنا يا ربنا بحرمة الهادي عليه صليا وسلما في سعبه وكن ليا subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin addee borom Tuubaa ilal gidaad wal